ñu ngi lay gërëm ci li nga xamante ni moom mooy eh, tey sa participation démb daje nañ fi tey eh, ñu daje waat lan moo waral eh, tey ndaje bi tey gannaaw ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum dialogue bi la. waaw euh, defe naa ku nekk joxe nga sa xalaat ñaari commission la woon benn bi ci date bi la beneen bi mooy bu fekkente ni élection bi dafa nar a jéggi le 2 avril. ku nekk joxe nga sax xalaat li ci des comme nuñ ko waxee démb njiitu réew mi wax ko bu jotee conclusion yi moom dina xool ni muy def jébbal maanaam mbir mi conseil constitutionnel pour mu joxe xalaatam man li ma mën a wax rek mooy xalaatu mouvement demain c'est maintenant wax naa ko dama koy waxaat rek mhm. ñun bu doon suñu sago duñu romb 2 avril bi ndax dañu jàpp ni constitution bi la mu wax leer na li njiitu réew mi wax itam leer na nee na doyal na ci sëkk le 2 avril moom dafay dem euh, euh, conseil constitutionnel conseil dafa rappeler ay principe yoo xamante ni yu tënku ci suñu charte fondamentale ñu koy woowee constitution benn mandat président de la république kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo yokk ñaar mandat boobu ak ñaata yoon nga ko mën a am mu ñaar kenn mënu koo laal loolu la article bi wax mu teg ci ne gannaaw bi ñu jëlee dogal euh, abrogé la convocation du corps électoral njiitu réew mi jël ko ak assemblée nationale voté loi bi bi ñu ko jébbalee conseil constitutionnel dafa dàq décret bi ak loi bi lu mu signifié mooy processus bi nga xamante ni dañ ko tàmbali woon avant décret bi ak loi bi processus boobu dafay continuer dara euh, nekku si dafa leer dafa tegu ci yoon maintenant effet yi nga xamante ni décret bi bi abrogé convocation corps électoral ak loi bi assemblée nationale bi euh, voté te conseil constitutionnel dàq ko ça dire que effet yooyu dootul am li desoon mooy nit ñi fixer la date de dans les meilleurs délais ni ko conseil constitutionnel waxe léegi mu am dialogue jaloog euh, nag waxtaan la man ñun moom dañu mës a assumer suñu position autonomie de pensée et d'action la ñu wax ku ñu woo dinañ la wuy si parce que du toute façon da ngay wax ñu tontu la ñun tamit ñu wax suñu xalaat ak suñu position man taxuma dialogue waaye itam dama jàpp ni 17 candidats yi nga xamante ni sur les 19 conseil constitutionnel validé validé leen war nañ leen mën a déglu parce que benn ci réew mi lañu lañu lañu la ñu bokk ñaar ñaar conseil constitutionnel bu jëlee dogal bu jëlee dogal amul kenn ku ko mën a remettre en cause parce que ces décisions sont ne sont susceptibles d'aucune voie de recours donc loolu war nañ cee mën a tënk li ci des nag waxtaan am na ku nekk joxe sa xalaat ñu jëbbal mbir mi conseil constitutionnel moom nag mu joxe avis boo xamante ni bu leer a leer su ko defee ñu mën a continuer parce que de toute façon Sénégal du yem ci élection présidentielle 2024 bi euh, dafay continuer na yàlla na fekk mu continuer ko ci jàmm ak ci ci dal surtout nag ci liggéey parce que euh, politiciens yi dañuy toog di waxtaan mais souvent dañuy fàtte loo xamante ni lu am solo maay mooy koom-koom mooy liggéey mooy entreprise yi mooy lekk bi mooy naan bi mooy mbay mi sàmm bi ak napp bi donc loolu daal mooy suñu position yi.